benn waxtu ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg njoloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey lépp lu aju ci ndongo yi nga xam ne rek ñeenti fukk ak junni lañu euh, ñu warloon leen yóbbu ci institut privé jamono ji nag xamuñu fu ñuy meloon dem rek ba jàng li ko waral école yooye wala université privée yooyu sax dañu jàpp dogal rek dàq xale yooye ba tax na waa UNAPES di kuréel bi ëmb parents d'élèves yi di sàkku rek ci kilifa yi ab dogal ci loolee mbiru suuf dinañ ci wax la ak le xew foofee ca gàddaay ñi fa lëruloon booloot ci benn kuréel di sàkku rek ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi rawatina waa tribunal ñu jëfe rek euh, li nga xam ne moo bàyyeekoon ci dogalu jugement bi ci loolu na nguy sàkku ñu teg loxo promoteur yi bu ko defee tamit lépp lu aju woon ci ndampaay mu mën ci jublu waxu politik Ousmane Tanor Dieng ne moom fanweer ak euh, ñeenti candidat ñi nga xam ne rek ñoo soobu woon ci euh, lépp lu aju ci wàllu parrainage fii ci réew mi mu jàpp ne juróom-ñett rek ñooy yegg ca cappaandaw ba bi tax na rek mu jàpp ne ñi nga xam ne ñooy ñoñam ay xaritam ji féete ci l'opposition bi moom jamono ji amuñu benn programme ba tax na rek ñu làqatu ci loo xam ne wax bu mu jàpp ne amul solo la mbiru tàggat yaram dinañ wax ci Ligue 2 euh, deuxième journée Ligue 1 fii ci Sénégal Teungueth FC ak génération du foot génération foot moom di dëggal seen taxawaay ci jamono jooju nag waa Sonacos léegi amagul ndam ba tax na rek jamono ji ñu fas yéene yokk seen taxawaay dinañ ci ñëw ak Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi loolu ponk yi xerew leen te dal ak jàmm ñu yaatal ko bu soobee borom mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru benn waxtu yu ñu door ak ndongo yi ñu orienté woon ci institut privé yi fii ci Sénégal te nguur gi jëloon ci dogal rek di leen di fayal jamono ji nag ba muy dinañ leen dàq ci l'école yooyu li ko waral dañ leen amal bor ba tax na waa UNAPES ci kuréel bi ëmb parents d'élèves yi di sàkku ci kilifa yi rek ñu jog def seen kem kàttan ngir gone yi mën a delluwaat di amal seen njàng ñu teewlu ci loolu Thierno Ndaw mu nekkoon seen porte ci micro seenu Thiam. at mu jot lu mu bon war na war nañu dajale kàngam yi nga xam ne ñoom nekk ci UNAPES ci bi ci Ndakaaru ak ci yeneen région yi pour ñu jàngat def ay jàngat ci ni ñuy fonctionner ak euh, euh, li li soxal njàng mi ak njàngale mi. naam euh, waxtaan bi jeexagul mais am na yu bari ay poñ yu bari yoo xamante ni jot nañ ko fee wax surtout ni njàng mi ak njàngale mi di sooxe Sénégal. Euh, parce que ñun ay waajur ndongo lañ euh, suñuy intérêt doom dong moo ñu soxal ñu wax ci mbiru suuf dem ba ca diwaanu gàddaay foofee nag ñu lërule woon ci jafe-jafe yi kër yooyeen nooy sàkku rek ci ñi nga xam ne ñooy waa tribunal ñu jëfe gannaaw dogal yi ñu jëloon teg loxo bailleur bi ak itam fexe ba mu amal ndàmpaay ñi nga xam ne ñoo lërule woon ñu tollu ci euh, ñoo xamante ne rek ñaari téeméer ak juróom fukk lañu ba tax na ci jamono ji maître El Hadj moo yor seen kàddu di sàkku rek ci kilifa yi ñu jël ci ab dogal ñu teewlu ko ci micro Seynou Thiam mbir mi am fii jaay doole la mm-hmm. li fi nekk nii lu kenn mënul xam la lu kenn mënul nangu la dañu bàyyi woon ba màggal Touba jot mm-hmm. nit ñi war a dem ñu jaar ci ginnaaw ànd ak ay des ko sag yu ma xamul ci préfet boo xam ne dam ci ànd ñu ñëw dimbale Babacar Fall mu toj lépp du ëpp ñetti téeméeri kër jàmbur yoo xam ne ñi ci ëpp ñëpp ay retraité lañ amuñu dara kii am na ku ko jàppale. ñi ko jàppale nag xam nañ leen. ku d'appel ba léegi ñemewu ñoo jàpp Babacar Fall. tax na nañu tiit sama gars yi jaaxle. Mhm. est-ce que sax du jugement bu njëkk bii jeexoon ay milliards. tëj ko jox ko mandat est-ce que duñ ko fi jëlee. ñu ñaar lañ bëgg. mooy ñu jàpp ko ni ko arrêt bi waxee. article 450 du code de procédure pénale juge bee ko wax. bu ko deful nag ñu ne ah Sénégal. am na Sénégal yoo xam ne war nañ dem kaso ak ñoo xam ne xëy war ñoo dem kaso état bi ko jàppale woon ba mu ca nekkee te état moo fi nekkal ñëpp kuy jooy doomu état nga ku am sa doom muy jooy da nga ko war a fonk ay rangoñam ñii sonn nañu te Babacar Fall mii amul lu mu lekk bay réparé ñeent ay ay milliards ay ñeenti milliards kon état bi na taxaw damp ñii damp bu mat sëkk ñu dem diwaanu Saloum wax ci wàllu gardiennage foofee nag ñi nekk ci kiiw gardiennage bi euh, ñuy duppee asal ñoo jóg taxaw rek di sàkku ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon seen ay patron ñu xoolaat seen taxawaay ndax duñu ñu mën a nangu benn yoon ñu ñëwaat ngir jël kër gi ci jamono joo xam ne dañ leen yoral ay bor yu takku ba tax na rek ñoom seen bopp li leen gën a yitteel jamono ji mooy def seen kem kàttan ngir seen liggéey gën a mucc ayib Ibrahima Diame andi ci ak Faly liggéeykatu société de gardiennage bi la ñuy duppee ASAL di agence de sécurité du Sine Saloum ne du ñu nangu mukk ku nasaxal seen contrat de travail ñu ne ñu fi nekkoon ci seen yorin jaarul yoon ba ñu dàq leen ñoo bëgg a dellusiwaat pour jëlaat kër gi loolu nag lañ ne duñ ci dal moo tax ñu def janook taskatu xibaar yi. ku ndóbin sa maam boo gisee lu ñuul dawal ñoom dañ fi nekkoon ki la jiite pendant six ans neuf mois ba muy dem mu bàyyi la arrière de salaire Tamba Ziguinchor Diourbel. bay IPRES bay la domaine bay la kees tey nga dem ba loolu yëpp ngay fayeeku loolu yëpp jaaraat yoon loolu yëpp baax moom mu xëy ñoo nee la joxaat ma suma société mais sëñ bi kooku kooku yaakaar naa ku mu munti doon sax war nga xam ne yenul maanaam bu ñu sukkandikoo ci agent yi de yorinu administration bi fi nekk léegi jaar na yoon ndax amatuñu problème mu payoor te gis nañ ne ñiy dem retraite ñu ngi jot seeni pension boo xam nga kenn du ne lépp a ngi rose mais alhamdulilah parce que travailleur bu dee weer dee fayeeku nga ku actuellement asaan ku dem retraite euh, euh, yaa ngi jot sa pension suñu collègue dem retraite ñoo ngi jot seen pension caisse sécurité sociale bu joxee ñoo ngi koy fayeeku boo amee ordonnance boo demee nga nga mais loolu travailleur bi au plus tard la set le 5 ñu viré le 7 billetage commencé na. këru liggéeykaay bi nag di agence de sécurité du Sine Saloum ñoo ngi ko créé depuis 1978 waaye tey jii nii am na lu mot ñetti téeméeri gardien yu nga xamante ni ñoo ngi ciy liggéey ñuy assurer sécurité entreprise yu bëree bëri ci biir Sénégal. ñu dem ca diwaanu Thiès foofu nag ñu ngi doon waxtaanee lépp lu aju ci mbiru pétrole ak gaz fii ci Sénégal ci teewaayu Mimi Touré kooke nag yëkkite ay kàddu ne nguuru Sénégal dinañ def seen kem kàttan ngir lépp lu ci bàyyeekoo rek mu mën a leer ci gëttu askan bi ba tax na rek dinañ ci jël tamit ay matuwaay loolee nag mu wax ci kanam ñoo xam ne rek seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu pétrole Cheikh Anta Diop andi ci ak say laatir dalaloon ab forum bu ñu doon waxtaane lu jëm ci wàllu gaz ak pétrole biñ na feeñ na fii ci réewum waxtaan wi nag daanaka ay borom xam ñu seen xam màcc ci wàllu pétrole ak gaz ak ay cadre APR te plateforme diisoo jiite ko Augustin Tine mi nga xamante ne moom mooy coordonnateur départemental bu APR Thiès gis ne lépp jaar na yoon te it li ñu fi wax war naa gind ku nekk ci réew mi. am na loo xam ni euh, bari na coow temps yi maanaam mooy mbirum pétrole bi ak gaz donc conférencier yi li ñu wax tey. yaakaar naa jàngal nañu ñi fi ñëwoon di déglu wax leen ni que d'abord contrat président de la république signé ko benn beneen bi mooy booy wax mbirum pétrole xanaa dana fekk nga téye pétrole mais pétrole bi ñu ngi wekk ci seet fan la nekk boo euh, seetee fa mu nekk ba pare nga wut jumtukaay pour jot ci mais pétrole bi bu nekk ci biir géej moom la ñuy wax offshore boobu noonu am na boo xam ne mi ngi ci euh, deux kilomètres ci biir suuf deux mille mètres ci biir suuf wala mu ëpp ko beneen bi ci biir mu nekk ci deux mille deux mille mètres mais loolu xam naa pour génne ko am na gëm naa ne amuñu moyen yooyu. donc il faut mu am ñoo xam ni nangu nañu jël seen xaalis dugal ko ci pour que loolu mën a génn. Augustin Tine nag yokk si ne jamono yi nag gis nañu ñenn ci opposition bi di xalaat di sànni xeer waaye nee na démb ñoo doon tagg ki Sall. kon fi démb ànd ak ñun ni président de la république moo fi gën jékki-jékki ñu ni président de la république la mu def baaxul loolu xam na ma indi ji gi jaaxaat tuuti vraiment am nañ ci ñoo xam ni samay xarit la ñoo ñoo fi nekkoon gisoon ngeen ak ak man ñuy waxtaan ñuy wax lu baax ci président jékki-jékki rek. am ñu ni président lépp lu muy def baaxul loolu xam na ma jaaxal tuuti ci doomi aadama. forum bi nag feesoon dell ki nit directeur général bu SAR di Serigne Mboup doon def conférence bi ak directeur des mines di Ousmane Cissé. Cheikh Anta Diop ñu wax ci leneen fédération démocratique des écologistes du Sénégal ñoo yëkkati kàddu ñoom ñu ne rek ngir ñu mën a xeex ñi nga xam ne ñooy salfaañe alam bi foog ñu jël ci ay dogal. ci loole nag dañuy fexe ba texte yi nga xam ne moom lañu doxañ ci kër euh, boobu le code mu gën a tar bu ko defee rek képp ku doon def naka sudul noonu ci àll bi nga wàññi loole kaddu yooyu nag euh, Ali Aydar moo ko yëkkati rek gannaaw ndaje bu ñu amaloon foofee ca bët Saalum réew mi ñu teewlu ko ci micro Boubacar Dias may may gërëm bu baax assemblée nationale ak ministère de l'environnement ndax code forestier bu bees bi ñu bi ñu génnee euh, code la bi nga xam ni dafa contraignant maanaam li ñuy sas kiy trafiqué di kiy gor bant léegi day dem prison bu njëkk day fay amaan rek ñu bàyyi ko mu dem léegi dina dem prison donc loolu ñu koy rafetlu parce que àll bi buñ koy aar parce àll bi ñun ñëpp ñoo ko moom boo bàyyee ay samba booy ñu dugg ci biir gor ko euh, ñoom ñoo koy akimo te loolu day yàq yàq bu bëri day yàq mbéy mi day yàq sàmm bi day yàq taw bi te ca àll bi dafa bëri koom-koom yi nga xam ni ñu bëri dañ ciy dugg di wut koom-koom yooyu yu mel ni màdd yu mel ni tool yu mel ni di tax ak yeneen ak yeneen. bu ñu ñëwee jàkkeen euh, dañu wax tamit ni ñun écologistes yi euh, président Macky Sall la ñuy jàppale ci élection yi ñu jëm ci parrainage yi ñu jëm ak ci suñuy jëfin tamit suñuy jëfin yëpp ci moom la ñuy jàppale. wax ci mbiru politique ak parrainage Ousmane Tanor la jiital HCCT moom dafa jàpp ne rek ci téeméer ak fanweer ak ñaari candidat yi nga xam ne ñoo soobu ci lépp lu aju ci wutay signature moom dafa jàpp ne juróom-ñett kese ñooy mën a yegg si ca cappaandaw ga matal ni mel ba tax na ñooñee nag ju si bëri dañu laqatu di wax naka su dul noonu ngir bañ a présenté seeni programme Abdourahmane te woon na fa ci meeting bu mu daan amal foofe ci Diofior andi ci ak Mamadou Ousmane Tanor Dieng di woo ñi nga xam ni ñoom ñoo seq benn Bokk Yaakaar ci Fatick ñu booloo nekk benn ngir yombalal Macky Sall amaat beneen yi mandat. leen di ñaan mooy ñu doon benn te yéen nag Fatick quand même vous avez vous avez am une une un défi particulier parce que c'est vous. euh, qui avait la chance d'avoir le président de la République, Macky Sall, qui est un natif de Fatick. et vous ne pouvez relever ce défi que dans l'unité et dans la cohésion. meeting bii nga xam ne ñooñu président bi ci Diofior lañ ko amal njiitu au conseil des collectivités territoriales daal na fa tàgg njiitu réew mi. le contexte dans lequel nous sommes. contexte bi nga xam ni Sénégal am na pétrole ak gaz ki fi gën mooy Macky Sall moom mi nga xam ni ingénieur géologue la nga xam ni am na diplôme ci institut du pétrole nekk na fi ministre de l'énergie balaa muy nekk ministre de l'intérieur nekk na fi premier ministre nekk na fi njiitu assemblée nationale te tamit juróom-ñaari at yi nga xam ne def na ko ci réew mi gis nañu li mu fi doxal. secretaire général bu parti socialiste yokk ci di attaquer opposition bi. amuñ argument puisque dañuy xaste dañuy saaga dañuy inventé kooku du jëmale discussion bi fenn moo tax parrainage bi baax parce que après le parrainage au maximum le nombre de candidats yàlla rek moo xam mais su passé juróom benn juróom-ñaar wala juróom-ñett na ma jaaxal parce que bi ñu nekk ku nekk ñi bëgguñu parrainer nañ ñëw léegi on en est à 134 yu jël ci ay fiches. Ousmane Tanor Dieng nag di am yaakaar ni ngoonu 24 février Macky Sall mooy jël ndam li ci lu toll ak 67 pour cent. Abdourahmane jàlloo génération Sénégal émergent ab mouvement bu yees la kookoy juddu nag ci li ko tax a jóg moo jàppale njiitu réew mi Macky Sall ci lépp loo xam ne sumb na ko ci wàllu politique fii ci suñu réew ci seen njiit nag euh, directeur port autonome bu Ndakaaru nee na dinañ def seen kem kàttan ngir seen taxawaay gën a fës Habib Faye teewoon na ndaje ba ànd ci ak Mar émergence bu Sénégal lu ko soxal la moom directeur bu poor bi kafu benn yoon génnee lépp lu mu am ngir rek indi njàppanalam ci njiitum réew mi Macky Sall sa Sadikh Bèye moom ne lii nii ab jongante la goo xamante ni faaw rek ñu def ko ngir mu faluwaat. lii ñëw nag moo ëpp moo gën a tee ëpp parce que machine bi dafay tourner fu mu nekk ni machine bi dafa dafa dafa tàng Et, euh, on connaît le, ce qu'il faut faire. Le président sait exactement où il va. C'est pour ça qu'il est important que euh, euh, xale yi jeunes yi ànd ak président approprié ko pour que Sénégal pour de bon génn ci ci ndóol bi ñu bi ñu nekk. aw réew ngir mu sukkaliku faaw rek ñu teg ko ci ay ndaw waaye itam moom mi lekk ci gën di soxal rek bokk na ci ñu tàggat leen. xale yi lañu bëgg ñu préparé wu xam ne addina bi ñuy bi ñuy dugg dund nii. àddina compétition la lépp loo xam ne danga nga ko jéegaane ci béy ci beneen dëkk ça veut dire que yaa ngi créer ay emploi ci beneen beneen dëkk ça veut dire yaa ngi yore économie beneen dëkk loolu moo tax ñu war a ñaax xale yi. ca ñuy ŋàññi yorinam ca port moom moomee di firndeel ni amut benn employé boo xamante nit yor nga saw contrat mu dàkk la ci port googu loolee yëpp ngir rek gën a mën a yokk liggéey ca poor gi. port bi biñ ko ko fa fekkee. emploi yi fa nekkoon yëpp dindiwuñu ci dara boobu ba léegi ñi fa nekkoon am contrat ba léegi président dafa ne année sociale la bul génne kenn ba léegi ñëpp ñi fa nekkoon am nañu contrat te incha allah port bi day gën a yaatu gën di créer emploi incha allah. gën a gaawal yoonu émergence loole mooy la tax a jóg waa génération Sénégal émergent njiitu port bu autonome bu Dakar moom moomee ne dina def kéemtalaay kàttanam ak it lépp luy pexeem ak i dooleem ngir rek bokk ca lay falaat njiitum réew mi Macky Sall ci atum 2019. Habib Faye ñu wax ci la leen Serigne Modou Kara Mbacké doon màggalaat rek jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba ak liggéeyam ci loolu nag mu amaloon ci ndaje ak ay taalibeem mu sukkandiku ci li ne mel mu ne dina boole lu mat juróom-benn fukki taalibe ak juróom-benn lim ci jublu nag mooy amal ay ñaan ngir lépp lu ñuy faral di gis jamono ji maanaam ñi nga xam ne rek ñooy faral di def naka su noonu nag riggante seen eh, ay jëncante ba tax na rek mu gis ne loole lim ci sàkku rek mooy jàmm sax dàkk fii ci suñu réew Habib Faye Ababacar Camara. Serigne Modou Kara léegi. nee na moom mooy gouverneur national bi leader Bamba fépp bi dajale ay taalibeewam ngir rek màggal bés gi Cheikh Ahmadou Bamba jóge woon ca Gabon. que le monde entier a besoin de Bamba fépp le monde entier a besoin du gouverneur général. je bu demande encore une fois de répéter après moi la nouvelle nomination l'appellation nouvelle. de ce guide national. Gouverneur national. bu ndaw ñi góorgóorloo rek réew mi jàkk kenn bañ leen a sànniloo xeer kenn bañ leen a manifester loo su ma leen doyee su ma leen doyee su fekkee doy naa leen yéen ndaw ñi. ñoom bambiste yi ne jox nañ leen ndigal ngir rek ñu woote te itam daañu ko jëfee. Mbàkke foo jëm baax na. andal baax na we don't care about it koo andal baax na koo voteel baax na what we want people to do is just mu ndërmeel baax na fu mu jublu baax na li ñu war rek mooy ñun la mu ñu laaj muy du dara lu dul signé ci këyit dañ ko ko jox ngir kennal ko ni ko Serigne Touba kennale. ñoom ñooñee la Serigne bëgg ngir rek ñu jëlee fi phénomène bi jigéen ñi di taal seen jëkkër yi moo moomee digle ay ñaar à partir d'aujourd'hui 66000 bambistes la bëgg de 14 à 25 ans yoo xamante ne bii kenn ku nekk kenn ku nekk Allahu Muhammadu ñëpp a ko man jërëjëf Serigne Touba ñëpp ko man ñaar yooyu képp laa leen sant dama bëgg yi xew ñaare ci réew mi nu koy faje neneen ndax su région bi jànge ci nun yeneen. àdduna bi jàng ci ñun yeneen jeunesse bambis boobu may mettre en place ñoo ko fi jële na mu ko daan defee rek moom Serigne Modou Kara waxati nañ ca moom moom mi nga xamante ni tey dajale na ñi nga xam ne ñoo di ay taalibeem waaye mu gën ca ràññeek ak uniforme général ga mu tàggat yaram ñu doore ko tiis wi fam fële ca ndombo ci diwaanu Saint-Louis ndombo Sanjeri foofe nag ab benn supporter lañ fa faat gannaaw jafe-jafe yi fa judd woon ci match bi doxoon diggante ASC ndombo ak ñi féete woon sul kër bu jàmm gën loole nag ñu ne waa ji rek gannaaw ay jàmmarloo yu fa aw lañ ko dóor ab brique ba mu ñàkk ci bàkkanam ah, ñu ne loolu nag bi nañ ci ab lanket rek ngir xam ana lan moo waral bi lay ñaawteef ñu desandi ci mbiru nawetaan dem ba ca diwaanu bët saalum réew mi ca gox ba ñu naan ñasiya ñooñu nag dañu jóg taxaw ngir xeex lépp lu aju ci ñaawteef yooyu fexe tamit ba gone yi xam ne football la kese ak li nga xam ne mooy po te jarul am xiiroog ngaayoo ba tax na rek kilifa yi dugal nañ fa ay kopp wu takku rek ngir gunge gune yi ci loolu ñu teewlu kenn ci ñoom Mamadou Diallo lay wuyoo ci micro Boubacar Diassi sur terrain bi ñun bu ñuy football bu ñu nekkee ndaaw ñun ñu ngi koy ñaan donc euh, yàlla def na ñun ñoo nekk ci boppi commune bi ren pare nañu pour clôturer ko. parce que ak partenaire ak PNDL bi ñun joxe nañu suñu contrepartie PNDL am nañu enveloppe 35 millions moom la ñu nekk xaar donc état bi la ñu pour mu defal ñu bi bu ko ñu mën nañoo fii euh, bi dès le mois de janvier par rapport à ça. ñun lu ñu gëm mooy mënuñu def dara sans ndaw mais ndaw yi aussi il faut que ñoom aussi ñu góorgóorlu bu ñu leen orienté ñu mën a accepter orientation bu ñu leen di jox parce que ñu xam ne ñu nekk tey il faut que xale ñu tàggat leen ñu won leen yoon du baax parce que bu ñu leen bàyyee nii maanaam ñu def naka sudul noonu. ci mbiru football wax ci Ligue 1 deuxième journée ñu football coach semaine bi ñu passé fii ci Ndakaaru ak ci gox yu bëri ci biir mi ci loolu nag ñu jàpp ne Teungueth FC ak Génération Foot moom ñaari match ñaari victoire lañ ci am ci jamono jooje nag waa Sonacos bu Diourbel amay jafe-jafe ndax ci ñaari génn ñaari défaite lañ ci am Sonacos Casa Sport euh, bu Casamance tamit jamono ji amagul benn euh, victoire Cheikh Sadibou Diarra jàngataat deuxième journée ko gañe mooy wéy di nekk ci bopp classe Tëngéej FC bi nga xam ne moom rek moo fekki gañe mooy wéy di nekk ci bopp classement Ligue 1 bi dañoo fekki Mbour Petite Côte door ko benn bal ci dara muy seen ñaareeli ndam Génération Foot tamit amal na ñaareeli ndamam li Linguère la door ñetti bal ci ñaar muy jongante bi ëpp ay but ci deuxième journée bi US Gorée AS Pikine ñu ngi wéy di am taxawaay bu rafet ci ndorteeru Ligue 1 bi waa Gorée yi dañoo fekki waa ñaari tali temboo ak ñoom ku nekk am benn bal waa Pikine moom ñoo jël ndam li ci match bi ñëpp doon xaar jaraaf lañu dóor ñaari bal ci benn jamono jooju Casa xamagul li ndam di saf ci seen stade dañoo tëmboo ak stade de Mbour ku kenn dugalul muy 0-0 bi njëkk a am ci saison bi Sonacos moom moo jël ndaar njàmbur la demoon jëlee fa nërmeelu benn bal ci dara muy ñaareelu nërmeeloom fukki bal ak ñett rekk lañu dugal ci juróom ñaari joŋante ñu yegg si ci xëttu yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf fichier électoral bi doonatul kumpa yëf yaa ngi ci internet bi le quotidien nañu ministère intérieur moo jël dogalub jël fichier bi def ko ci internet bi ngir bëgg ñi séq géopolitique beeg askan wi ku ca nekk mën a xam la ca nekk journal bi nañu waaye waa front résistance nationale ñoom seenum xel tey na ci yëf yi ba moo waral alxamis jii di ñëw nee nañu ñu wut seen i kàngam maanaam i expert yónni leen ca daaf ngir ñu dem càmbara leen yëf yi vox populi nañu keroog àjjuma la ñu dugal fichier bi ci internet ci surtout gouvernement bi waaye mbir yi saafara su jur jàngoora la nar a doon ne ñu bari ci ñi seex géopolitique bi seen gis-gis da caa wute ñu gis Aminata Touré mi jiite pôle parrainage bu benn Bokk Yaakaar mi ñu xëy di waxtaan ak waa enquête dina kay nee na leen ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti candidat yi sampu seen dënd ne dañuy bokk ci présidentielle yi 2019 yi ñuy dégg ñenn ji rocceeku ndànk-ndànk ñoo ñey rocceeku dañoo njëkk rocceeku rek dañoo njëkk a yëglu waaye ñeneen danañ rocceeku waat mu ne leen rek mooy seen yitte jamono ji ñoom ñaan ak Macky Sall moo di fexe ba président Macky Sall faluwaat jiitewaat Sénégal déggaat son excellence kii di Karim Wade Aminata Touré ne du sori ci ay waxam ndax Karim Wade xam na li mu war a def premier ministre Sénégal ba woon di Aminata Touré yamu ca jox na waa enquête xalaatam ci àndub Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko gi ñuy dégmat si Mame mbay Niang ministre du tourisme source a nee nañu yëkkati na ay tuuma yu rëy te diis teg ko ci ndoddal opposition bi nee na ci réew mi am na fi opposant yoo xam ne ay nit ñoo nekk bitim réew di leen ngeen bakka xam ngir ñu yàq réew mi waaye loolee ña leen ko sant ak ñoom ñañu ko sant dañuy sonal seen bopp rek loolee ñuy jéem guddal mbayum noor la du ma sa am su les éco nañu lam waxal opposition bi moom ministre Mame Mbaye Niang loolee ci gën tuuti nee na coowal exploitation fer bu Falémé gi ñuy ŋawta ŋawteeka mbambu ci réew mi dañoo bëgg wax rek waaye ci ñum opposition bi am na ci ñaar ñu ñëwoon àndoon ak seeni groupe ngir bëggoon a gagné marché bi leneen coow lu lëmbi dëkk bi di contrat d'affermage bi ci wàllu ndox mi Mame Mbaye ne état bi xam na li tax mu tànn Suez ndax Suez 298 virgule 5 francs lay jaayee mètre cube bi ci jamono jooju SDE 364 francs la la tribune nañu pour muy leer Mame Mbaye Niang nee mbir yi manque à gagner bu toll ci deux cent cinquante milliards maanaam ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk am na ci contrat bi doxoon ci diggante SDE ak état Sénégal Sénégal bor yi mu amee bor yi ñu koy toppee téeméer boo ca jël juróom fukk ak ñeent maanaam cinquante quatre pour cent yi nguurug Abdoulaye Wade moo ko fi bàyyi Mame Boye Diao directeur services fiscaux régionaux moo ko wax wax jaa ngi ci xët mu njëkk Sud Quotidien yéenekaay bi nañu Diao Kolda di Mame Boye dañu ko invité woon keroog ca rajo Sud FM ci émission objection fa la ñu jëm opposition bi mënuñoo yëngal Macky Sall duñu danger ci moom moom Macky Sall laas na ko mi ngi ci xët mu njëkku yéenekaay bi taxaw dend ak Augustin ministre forces armées dend ak i soldat ñu tiimandoo ay fital ak i mété laas yéenekaay nañu keroog la woon ci bëccëg gi ñu jaglo leen armée bi ñi nekk ci internet bi te duñu fa def mukk lu jaadu ñooñee le président Macky Sall geeral guerre bu saf sap nee na waratuñoo bàyyi benn Sall nappaaje na fa opposition bi bu baax a baax wax nañ ne président de la république dem cëm réew di fa def a visite am ñu jóg di saboté visite ba loolee du ñu ko mayiti kenn du ñu bàyyi kenn di ko defati léegi ku fi wokkee danañu la xuri l'observateur xamal ñu ci xët mu njëkk ne deuxième édition ndaje mi ñu naan African Leadership Awards gi ñu doon amal ca Paris ndam lu rëy la Mbagnick Diop ma ko organisé woon jaarati na fa mu daan jaar Youssou Ndour ñëw ne ko dooma ko dàq fa spectacle bu rëy te toj Thérèse Faye toj na fi ubbil la Sénégal yi coordinatrice nationale bu bi di Thérèse Faye xëy na dugg maître Mame Adama Gueye ba xolam sedd nee li maître Mame Adama Gueye di def solo dàllam kër opposant bu nekk mu ne fa naam daraame ñàkk xam fu mu jëm ak bëgg fu mu jafandu moo tax mu koy def nekku ne yëgoon na ne maître Mame Adama Gueye nee woon candidat la ci présidentielle yi 2019 yi ba mu demee ba ci biir xamal boppam xel ne mënuta am mbooloo mu ko pare ne ca la ci génnaat ba set wecc léegi nag li muy def moo da koy wan ne moom candidat réseaux sociaux yi la bu dul réseaux sociaux yi du sore ci wàllu politique coordinatrice nationale bu COJER bi di Thérèse Faye ne gaa ñiy tëbaka dal dara yëngalu leen dara taxu leen di tëbaka dal lu dul pétrole ak gaz bi ñuy dégmati ci réew mi waaye loolee moom nañ ca noppal seen bopp député Seydina Fall di Bougazeli nangu na loxo bi ko Alioune Sall tàllaloon ca Géejawaay xibaar baa ngi ci l'observateur nee na li jaadu mooy mu nangu loxo bi ñu ko tàllal ba ñu ànd liggéey ndax ñoom ñaar ñëpp mu di moom Seydina Fall di Aliou lu ne daj na ko ci parti bi lu ne daj na ko ngir ma Macky Sall kon bu gisee kuy liggéeyal Macky Sall taxaw woo ko ngir mu ñëw jàppale ko da dem mu ne Aliou sàll bu dee li muy woote dëgg la ci moom rafetlu naa ko li ma dul nangu kay mooy ku may këll-këlle wala ku may dugal ci caaxaan ginnaw demee na nii nag dinaa gën a yokk góorgóorlu am naa 6166 parrain te leer na ma ne laata ñu yegg ci fukki fan ci weeru décembre dana am lu toll ci fukki junni parrain mu teg ci ne jamono ji ma ne tekk yënguma waxuma kenn dégguma dégg naa am na ñu doon balballu ca fiic mi ci doon fa wane seen bopp ñooñee nag léegi nañu yemale seenum pecc ci baara mbay te xam ne le lion de Guédiawaye dellusi na Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la yéen tamit naka nooñu ci teewlu beeg safo bi leen di ñaanal këndalu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen